Pape Malick Ndour mi ñu dénkoon ndaw ñi ak ko fa wuutu amal nañu ab waxtaan ci biir biiroom laata ñuy ñëw ci saal ba nga xam ne euh, foofu la ñu jébbalante dossier ya ministre sortant ba nag gannaaw bi mu jëlee kàddu daal dinay remercier Macky Sall mi nga xam ne moom moo ko denkoon na ndaw ñi ci njeexital atub 2022 laata muy félicité Bassirou Diomaye fay ci ndamam bi mu am ci jongante présidentielle yu ñu fi amal ci ñaari fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi ñu génn. loolu nag dinaa ko ci sant dinaa ko ci gërëm. maa ngi koy félicité di ko ñaanal waaye nag di félicité ki nga xam ne moom la fi yàlla teg sénégalais yi fal ko muy le président Bassirou Diomaye fay Pape Malick Ndour daal dinay ñaanal itam ki ko wuuta ci bopp ministre de la jeunesse bile waaye nag fàttali ni ko itam liggéey yu bari mi nga xam ne ñu ngi koy xaar ministère de la jeunesse lu métti la man je m'étais juré quand je venais ici après avoir vu que très souvent les ministères de la jeunesse les que bi ma fiy jógee ba fi dem du ma am benn plainte boo xam ne dinaa ko déposer contre ay jeunes yu Sénégal te yàlla xam na nag ne lu ma dégg bëri na waaye nag loolu rek lañ lay sant lañ lay ñaan waaye xam nañ ni incha allah bu neexee yàlla danga ko def. ngir fexe nag ba relever défi yi le jiwrin bu bees bi di yaakaar ci personnel bi yépp di personnel boo xam ne sax daal dinay sàqu ci moom mu respecté directive yi nga xam ne jiitu réew bu bees bi daal na koy joxe. les normes et les lépp lu ñuy def it nañ ko tëral ci yoon lépp lu ñuy def it nañu jiital Sénégal nañu jiital suñu askan lépp lu ñuy liggéey i tamit wax nañ ko fii ci suñu discours nañu jiital la probité morale. askanu Sénégal nag téeméer boo ci jël rek juróom benn fukk ya ay ndaw lañu te seen at weesuwul ñaari fukki at ak ñeent. loolu kon di firnde rek liggéey ba di yomb. waaye nag en tant que inspectrice de la jeunesse et des sports di madame Khady Diène Gaye nekkut ci ab terrain inconnu